Euh, ci digganteem ak prêcheurs yi laa bëgg a ñëw euh, docteur parce que nag euh, ku ne xam na ni xam-xam bu amul laam-laame wala bu comme ni ma ko waxee dès l'entame de propos bu neex a dégg ngay ngay xamle est-ce que jotul nga mettre un peu d'eau ci sa cas souvent ngir mën la tendre la peut-être jox leen ay références à que ñu dem yegg xëy na ci téere yi nga yegg ba mën a définir li nga xamante ni moom moo di islam bi autrement man damay dispensé ay jàngale chaque vendredi nga xam ne dañuy bu tàkkusaane ju wasifa euh, def jawar def euh, adra bu ñu jullee timis danañ jël uneur heure deux heures de temps boo xam ne ay ustaas ak ilimaan ak muqaddam dañuy teew <coughs> di poser ay questions yoo xam ne dañ ciy jógee bu ñuy jàngalee ñu boole ko ci maa ngi am rajo boo xam ne dañ ko jàpp fii ci Dakar muy Jafara FM 91 point 9 euh, non fàtte naa sax kii bi 96 point 3. rajo bi nu tudd. Jafala J A F donc nga xam ne euh, dafa am waaraate ak jàngali téere yi li ko dale ci ibnu Ashir Ashir yu Lawal Saani Risaala yooyu yëpp dañ koy jàngale ci làkk yu bokkul ba nekk jàpp ko léegi xëy na bambara la ñuy wax xëy na nga fekk ñu wax séeréer wala maanaam yemale ñu ko ci wolof. ma yemale ko ci wolof ségg ségrégation la man dama koy joxe ba ci ba ci joolaa dañ ciy waare ci joolaa di jàngale ci joolaa di ko def ci soo soninke loolu mooy lii ma mën mais ce est important mooy yaakaar naa ne lii la ma wax politique la sama opinion personnelle la en tant que koo xam ne dama bokk ak Macky bi ma ko àndeek moom soutenir ko ci ci mandat bi passé vraiment te muy mu wax publiquement ne sama xarit la ma yaakaar naa ne buñ ko bàyyee mu dawal ba deux mille vingt huit Sénégal dina changé lu lu bëri. deux mille la déggee euh, euh, docteur mooy ñuy wax ni Macky Sall mi ngi ci deuxième et dernier mandat muy deux mille vingt quatre yow ànduloo ci loolu parce que deux mille vingt huit mooy beneen élection présidentielle. xam nga ànd naa ak Wade doon ut ñu tuddee ko deuxième mandat wa troisième mandat amul mu dem toog. problème bi nekkul foofu. Mm. te ku ci ànd ku ci àndul. peuple bi libre na parce que tey li ñuy tuddee man déggu maa ki wax ko li ñuy tuddee euh, de kii euh, troisième mandat <coughs> ci quin ci quinquennat quinze ans la ci septennat euh, dix-sept ans la mais Senghor nekk na fi vingt ans Abdou Diouf nekk na fi dix-neuf ans et demi. mais on parle de la constitution. non yow jàpp nga ne que man na bëgg nga bokk ci nga xam ne. Mhm. bu ñu leen sëlëx suuf si nga xam ne. Euh, indi dans l'erreur mooy deux c'est mieux que trois ou c'est mieux que quatre nañ bàyyi loolu nañu bàyyi le peuple souverain peuple souverain il choisit ce qu'il veut. mais ndax yow jàpp nga ne président Macky Sall am na droit man de jàpp naa ne lii lii def lii mu fi defa gom. Mm. su fekkee ne loolu lay continuer au mieux moi je suis si c'est cinquante et un mais su fekkee ne am na ko ko dàqit ma kooka la. mais mais li muy def nii gisoo jafe-jafe. da nga contre limitation des mandats suñu la déggee bu baax. damay politiquement c'est absurde. parce que personne ne le fait mi ngi mel ni li ñuy maye ci jàkka ji rek ba ñu ne kuñ mayol ci jàkka ji mais aussi limitation des mandats amul fenn y a 7 de personnes pourquoi seuls les Sénégalais limitent les mandats. ya y a d'autres aussi am na ay dëkk yu mu am comme les États-Unis ñu limité seen mandat. non loolu c'est moral. Mhm. c'est un acte moral boo xam ne def nañu ko. nekkul une loi. Mhm. buy wax ne non non non même même Trump wax na ne. xëy na mu dellu si pour def un troisième. alors euh, ñu bëri jàpp ne jafe-jafe yi Sénégalais yi di dund ba peut-être génn ci mbedd mi manifester mu décrypter le message de la jeunesse yow nga jàpp ne le président Macky Sall gongo mi ngi def lu baax donc mën na fi toog. pendant encore cinquante ans nan lañ mën a comprendre loolu ma ne kuy liggéeyal na toog ku liggéeyul euh, mott te moom mi ngi liggéey loolu nga jàpp ah, man de bi ah man de fi ma jaar ba ñëw fu ma tourné gis loxoom bu ma bu ma sañoon nag du fi ne ndax ma lu ma contre d'accord d'accord euh, dañoo nekk nag ci période euh, coronavirus Covid 19 ñu wax waxu vaccin contre le Covid 19 nekk ci période corps est-ce que vaccin boobu dina euh, est-ce que vaccin en général day yàq corps juste pour terminer. lépp loo xam ne luy faj la. lu mhm. yàq corps. piqûre rek intraveineuse ak intramusculaire ak suppositoire ak yooyu yàqu ci corps corps. am na ñoo xam ne foog nañ ni seen tafli di sax ci la bokk ba ñu di ko tafli waaw tafli dañ koy jël te loolu loolu nag moom mooy mooy yàq mooy yàq koor c'est que lii dafay circuler en interne bu nit bu amatul euh, kii li ma ko nit ki bu amatul tafli ci ñi dee lay bokk dootul bokk ci ñuy dund mhm. kuy dund ami taflit boo bëggee génn ci taflit yi nag te am problème donc nit ñi euh, weeru koor wi euh, dañ ko war a vivre normalement comme si ce n'était pas mm-hmm. am na ñoo xam ne même hors weeru koor dix-neuf heures la ñu door a lekk c'est ça d'accord alors papa ñu lay jaajëfal bu baax a baax ci euh, invitation bi nga accepté waxtaan wi amoon na solo lool jàng nañ ci lu lu bëri amaana di la jaajëfal bu baax a baax di la bàyyi nga tàggatoog téléspectateurs yi waaw kay en tout cas maa ngi leen di gërëm yéen ñi ngeen xam ne may ngeen ma ma génne benn point de vue sur le plan islamique boo xam ne ay droit la woon yoo xam ne da ngeen ko ignoré woon ni seen droit la le mariage n'appartient à à aucune mosquée ni à aucun imam ni à aucun marabout c'est une rencontre humaine <coughs> fécondante y a beaucoup d'entraves ji ngeen même pour wax ko sax damay am problème loolu dafa mindu anecdote la moom laay tëjee soxna si mooy dafa am waajoo xam ne ouvrier la six heures du matin lay xëy mu ngay liggéey ba neuf heures lay yegsi bu yegsi sonn na bu songoo bu bu sangoo ñëw toog jabaram tegal ko mu reer rek day daal tëdd nelaw xamul dara ci àddina bi xam nga ouvrier day mën a lekk surtout boo ko amee ndaw si tegal ko bool bi nga ko beel bu mag ba li ko rëddal ñaari rëdd ne ko fii ngay yem bu lekkee ba yegg ba ci rëdd bi ba rëdd wale rek mu daal di ko jox ndaw si ndaw si mi ngi dund ak ay frère am ki sœur am ak yaayam mu dem jox leen ñu lekk ñu toog ba jëmmi jamono soxna soosu dee ñu may ko keneen <coughs> kooku ñëw tegal ko ñam wi dugg ci biir génne ko andi yaay yow doo lekk mu ne xool ko ne ko rëddal la góoma mu ne ko rëddal la góoma maanaam waroon ma fu may yem bi mu xamee ne ndekkee kenn du rëddal mu dem dajale ay gars ñu jàngal ko kaamil pour jabar ji dem safara <laughs> Sénégal fii fii dañ leen a rëddal ci diine ji mais du rëdd wa jàll leen. <laughs> kon mu ngi noonu papa ñu lay jaajëfal bu baax a baax Fatou di la tàggu yow itamit di la bàyyi nga tàggatoo. beaucoup di jaajëfal bu baax a baax euh, docteur Ahmed xalifa Niass euh, waxtaan bi am na solo euh, am na luñ ci mën a jàng comme aussi am na ci loo xam ne comme ni mu ko waxee dina indi polémique certes mais ku ko xam xam ne dafay wax ak xam-xam quand même ñu koy remercier bu baax a baax di jaajëfal nag Khalifa Mbergane Lifa Couture comme d'habitude moom moo jaar ci tenue bi numéro téléphone ñu ngi koy remercier bu baax a baax mi ngi nekk ci marchage la merci Néné merci à toi Omar Cheikh Omar da nga yàkkamti rek ci yow laa doon ñëw. waaw da nga yàkkamti rek ci yow laa doon ñëw. mais mais mais mais neen Aïcha euh, permets-moi rek à travers sa personne ñu ñu rendre hommage euh, sunu papa Sidy Lamine Niass. parce que weer koor bu doon ñëw dañ ci doon gis taxawaayam. Euh, ak aussi ni mu taxawoo l'islam mais aussi li mu taxawoo démocratie Sénégal. Uh-huh. moom aussi li may wax intellectuel la buy assumé wu. lépp lu muy wax rek ci xam-xam la koy la koy def donc euh, di di di wax ni rek ah sañ sa bi nag. baax na yaa ngi jël daal faal couture pikir redis. na fi jël Baye bi. ku jaar ak yow ko yow booy ndar nga man booy Pikine laa maa yow du combat. wàccee nag romb boobu pour mu nëbb daal yi nag yow. <laughs> daal nii per carte bi. ma <laughs> pël laa soo ne ma pël nga xasoo ma dag maa tagg. na <laughs> merci beaucoup Néné merci aussi à docteur Ahmed Khalifa Niass pour euh, fluidité réponse aux yi. je pense moom ñu bëri jàng nañ rawatina man mi nga xamante ne sama allo soriwul comme loolu la waxee merci Ami Diana Ndoye euh, Diana design moom moo jaar ci modèle bi. merci mm, Ami Diana ñu koy nuyu bu baax a baax Omar Faye xam naa Mouhamed moom yow la ñuy terminer ndax euh, il faut que ñu neexalaat guddi gi bàyyi leen ngeen pelloo pour ñu mën a tëj. 17 avril. Mm-hmm. Cheikh Béthio dëgg la. Mm-hmm. ku wax ci Cheikh Béthio rek sa xel dina dem si ku tedd gi sëñ Saliou Mbacké. sa micro sa micro. ñëpp xam nañ ne mooy anniversaire am Cheikh Béthio Thioune. moo ñuy def spécial euh, plateau spécial. Cheikh Béthio ëllëg si GP lu ma lu ma am mbégte lool. Mhm. di bésit tamit bésu le lendemain sëñ son yi bu. yi bu. mais kii laa bëgg a défier. Pape Makhtar yow. adieu. lundi yow dama bëgg yow Fat Abdou. nga dem si ministre di du pétrole. àjjuma bu ñu fi ñëwaatee man ak moom la. àjjuma sori na. no ajuma bi di ñëw non que man. ajuma laa ma bi. ajuma laa fi ñëw noonu parce que dama bëgg li ma wax ñu xam ba xam ministre bi dina ko weddi wala du ko weddi. wala bu fekkee nag yow da nga bëgg a tuxu bëgg a wane ne dootoo sénégalais nga wax ñu ko. ma yow léegi yaa ngi bëgg a wane sa bopp. wane nga sa bopp yow. ajuma sori na déedéet non wane nga sa bopp. fekk ma si rajo bi wane nga sa bopp. naa la def xale parce que li nga xamante nii ne mooy centre. de de de de comment dire de remplissage nga taxaw ne total Massamba ma dem ba bàyyi sénégalais yor seen biir ah non pas Matar nag attention. ah non non non non non non non. waxal sa wax rek. ah non non non dama bëgg nag. wax naa la ne la. bu tey di dégg li ma si wax si bu tey. mais bàyyi deuxième bu tey dégg ma si wax wax ci total. du ñu nangu monopole bi. yow Paa Matar boo ko nangoo du ñu ko nangu. il n'est pas question ñu koy nangu. di bàyyi sénégalais yi ñu war a jaay seen gaz ñu ne duñu lañ fi jaayee jël total di ko rek bi ñu ko nangu ah, léegi nag bu fekkee di nga ko nangu dootoo génn ci fii di wax boo ko waxatee di nga di ne wax li ñu la la réponse vendredi prochain waaw loolu léegi yow bul fàtte ministre bi ah pour joxe les les raisons yi tax ñooñu defuñu defuñu kii de remplissage jeex na jërëjëf nee na di la di la di la jaajëfal di remercier aussi suñu papa ci disponibilité bi minuit laa ko waxoon tee nañ ko ba presque deux heures jot na di jégalu bu baax ci loolu uh-huh. mais Oumar euh, li ma wax sama kàddu waxtaan bee neexoon euh, yaatu aussi sama kàddu dafa leer dem la ni man préférence nationale loolu laa ànd mais ñi ne total di liggéey bu ñu leen jàppee ay bras armés wala ñoo xamante ne ay prête noonu nañ parce que ñooñu aussi yow ni nga amee intégrité ni nga amee xarañte ni nga amee euh, patriotisme ñoom noonu nañ ko amee donc ñooñu nañ leen jox égard ak respect bi nga xamante ne dañ ko mérito leneen li nag dam la ni képp ki nga xamante ne daf fi wàcce butéelu gaz boo xamante ne defuñu si marque bi pour ëllëg responsabilité ñu mën la topp bu amee jéya loolu dañ ko war a régulariser li ma wax leer na nañu waxuma ni waaw déglu ma benn benn kii dama la ni képp ku koy def képp ku koy def. loolu amul. d'accord alors dañ doon tàggatoo du débat on va pas ouvrir le débat. duñ ko ubbiwaat. d'accord. dama laa bëgg a wax ministre bi. Sénégal yi léegi ngeen ñëw grande gueule. assume. très bien. li ma d'accord li ma li ma wax ne ne lu gàtt la rek. Mhm. mooy euh, saa waay dinañ ko xamee jaxaseeg yii nii rek xam nga da ngay comprendre mais li may wax rek lu gàtt la mooy sénégalais yi. nañu bàyyi aussi victimisation secteur privé bi ñuy wax naan secteur privé secteur privé ñaata yoon la fi ay ñaata année nañ fi nekk il fali ko que Auchan ñëw pour ñu mën a moderniser suñu ay marché je suis pas pour Auchan. je suis pas pour Auchan. non non non laisse-moi terminer. volonté état la je suis pas pour Auchan mais Sénégalais Sénégalais nañu def di EDK am ay initiative dem Sénégalais yi accompagner leen mais toog rek dinaan bu kenn ñëw loolu dafa yomb. def nañ bu ñu amoon sax tas nañ ko. merci à vous alors euh, di leen jaajëfal ah yéen chroniqueur bu euh, Ndoumbelane euh, gis nañ tey ni ngeen jaxasee plateau bi en tout cas. <laughs> merci à vous débat bi débat bi neexoon na amoon na solo suñu waxtaan neexoon na. di remercier man tey moom aw ma du ku may remercier damaa àbb yére sama yaay Ndeye Seck moom laa moom laa moom laa àbb yére moo tax. di ko jaajëfal bu baax ah, ah, di ko remercier sama yaay jooju yàlla na ko fi yàlla bàyyi euh, di leen remercier chers téléspectateurs ci ànd bi ngeen ànd ak Sen TV bijouterie Graciela du ma tàyyi ci di ko wax